سلام دفق القلاه طول الليالي وعليكم من كل قلق سلام دفق القلاه طول الليالي جاء بشمحة حنين فتي بيضاء دين إبراهيم جديد سقالي وقبيل الإديان عام ضلال لست تدري محرما من حلالي حرفوا ثم بدلوا وفتوي شيخ إبليس حكمه في الفعال خابطا مثل خبط عشواء في الحكم فتعصى لذلك المضلال ثم دام من كعبة الله شكوى من أذاهم فجاء غير رجال راقبته خديجة إذ رأت فيه نومي بدرا طويلها باتصالي جربته وأمعنا نورا فيه بصدق الأخبار والأضلال خاطبته لنفسها آمنت قبل جميع الآباء والأنجال حين جاء الأمين به الغار فوفاها بدر روم الزمان فهي عون الهادي على ثقل الواحي قديما بفعلها والمقال ربما جاء المصطفى وهو مغموم لأمري في وهيه مهوالي وازرته وأحسنت فهي هارون له أيدته بالأموال بعدها جاءه العتيق علي ثم زيد عثمان بعد بلال وأتى عامر وطلعة سعد وزبير جاءوا لنايل الوصال وابن عوف عبيدة وسعيدان حمزة العم ليث يوم القتال قليل وداد العابد فيك صفاء ومدحك من دائي القلوب شفاء bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi walsalaatu wassalaamu ala rasulillah sayidna muhammad ibni abdillah xayri xalqillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit ñi ñuy déglu euh, góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ngi ndokkeel jullit ñi fuñ mën a nekk di ndokkeel julliti Sénégal mais di ndokkeel waa Sénégal yëpp ci xew-xew bu màgg mi nga xam ne mooy juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy feeñuwaay yërmaande yàlla tabaraka wa taala mooy feeñuwaay yërmaandeek tëbb gi di feeñuwaay yërmaandeek may yi muy koo xam ne yàlla daf ko amal pour àddina yëpp yëram àddina yëpp pour jàmmal àddina yëpp mu ngi teewlu la shaa'ir ba waxoon Ahmad Shawqi walida alhuda alkaainaatu diyaau wa famu zamaani tabassumun wa sanaa u yent bi nga xam ne ba mu juddoo njub moo judd addina yëpp leer xarxanami jamono ak gémmiñi jamono di muuñ ngir teeru feeñuwaayi yonent boobu nga xam ne moom moo doon mooy ñaan ak Ibrahim mooy Bushra Isa yonent boobu sallallahu alayhi wa nga xam ne mooy xaatimul anbiyaa wal mursalin moom mooy mottali yonent yi te jiitu na leen ci ak nekk ndax wax na ne kuntu nabiyan wa aadamu bayna al maai wa tin nekkoon naa di te aadama mu ci diggante ndox ak ban yonantu boobu nga xam ne lépp lu yàlla tabaraka wa taala di séddale ci xiw moom mooy bunta boobu nee na ana qaasimun wallahu mu'tin man rek maay séddale wala man séddale kat bi rek la waaye yàlla mooy kiy joxe waaye xam nga ne sédd jubóo ki kii kii séddale óor na lool ci fu ñuy séddale ku bëgg a yàlla fow nga jubóog yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam nga xam ne kat bi wax na ci xaqam wa an tabaabullahi ay yumri ataahu min gayrika laa yadxulu yeneent boobu moom lañuy feetu buñ koy feetu mooy ñi ngi feetu alxuraan buñ koy feetu mooy ñi ngi feetu sunna yi nga xam ne moom lañuy ñuy bàyyee taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu baadi abadan kitaab allahi wa sunnati bàyyee naa leen loo xam ne feeg yéen ci jàpp du ngeen réer mooy téere bi yàlla bi mooy sama sunna téere bi yàlla bi sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam njub lépp ci lañ koy taataanee ci lañ taataanee farata yi ci lañ taataanee sunna yi waaye ci lañ taataanee tim ilhamaat saalixiina yi yi nga xam ne jam yàlla yu baax yi seeni dégg yu wér yi nga xam ne du mën a am lu may xol yu wér yoo xam ne mën naa dégg lu jugee ci yàlla mën naa jël lu jugee ci yàlla ñooñu it alquran dañu mukk di nekk ndab lu ñuy taataanee njub nga xam ne àddinaa ngi ko soxla lu àddina bees bees lu xew-xew yi bëri bëri njub yëpp ñi ngi ko taataanee ci alquran ak sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi di wax kitaabu min allahi aljalili jalaaluhu qadimun wa baaqin laa yaxaafu zawala talaahu lfata almamuunu jahran wa yaqdatan wa daa baada hada kulla qiila wa qaala téere boobu nga xam ne ci Yàlla la téere boobu nga xam ne dafa jiitu waaye dafay des te ragalut mukk deñ ndax yàlla moo ko garanté inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun téere boobu bàyyi ne e, sang ba mu yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ óolu ki xam ne moom la yàlla óolu ci wax bi ba waaye ñoñam tim bañ a ko doon weddi di weddi ak yonentam ngir bañ lu soppi seen dund bi nga xam ne moom lañ nekkoon neexlu ko rek loolu lañ doon weddi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye masu ñoo weddi ci moom ngir ne jàpp ne euh, li muy wax du dëgg wala li muy wax ay ay sos la la abu jahlin waxoon bañ ko laajee ne ko ndax dëgg-dëgg bi ngay weddi muhammad sallallahu alayhi wasallam da ngaa jàpp ne moom li muy wax du dëgg mu ne déedéet masuma ko weddi ngir weddi li muy wax waaye dañ fay nekkoon démb nekk ko ka farasey raxaan ah ñoom buñ defee teraanga ñu def teraanga buñ defee jaloore ñu def jaloore moom mu fal ne yonentu la ñun amuñ fu ñu jëlee yonentu ñu weddi ko moom la yàlla wax yonentu bi fa innahum laa yukazibuunaka walakin azalimina bi ayatillahi yajhadun weddi wuñ la de kaawteef yàlla yi moom la ñuy weddi waaye weddi wuñ muhammad salallahu alayhi wa sallama koo xam ne dafa jub koo xam ne dafa mat koo xam ne dafa baax nga xam ne juddu na rek sosu ci mbaax googu ba nga xam ne ay noonam bañ leen laajee it mënuñoo wax ne lu ma yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ku baax la ku mat la di dégg nga Abu Sufyaan dajeem ak Xeraq la ba mu ko laajee ndax dana huruj mu ne masta huruj dana huruj mu ne masta huruj ah amut fenn fu ma mën a dugalee benn baat mu ne lu may foofu ma ne fi mu ne daal ñu ngi ci jubóo bu bees xaw ma nu mu ciy def waaw te loolu ab noon ñi jubale ko fukki laaj yu jëm ci yow mënu cee wax dara lu lay wàññi ndax mu ngi ragaloon ñi tuumaal ko fen ndax iraq la ne mu tarjim bi ne ko taawal fii li muy wax nag lu ci du dëgg ngeen ne ma du dëgg mu ne ragal na ñi tuumaal ko fen loolu nag bu fekkee ne kooku euh, dafa jàpp rek ne euh, sang la moo tax mu ragal ñi tuumaal ko fen sang dëgg-dëgg mooy koo xam ne danga ngaa gëm yàlla gëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu yonent nag moom la ñuy feetal di ko gàmm ndax wane suñ kontaante ci xéewal gu nga xam ne moom la ñuy yàlla xéewal bi ni'mati rabbika fa haddis qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dalika falyafrahu wa xayru mimma yajmauna ba tey xam nañ ne rahmatullahi rahmatullahi al uzma mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yàlla wax ne ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yërmaane la ci xam ndax ba mu ñëwee la leer xam-xam ñëw euh, lëndami réer dem yërmaande la ci am ndax ba mu ñëwee la àddina yëpp ku nekk war a jot li nga xam ne moom nga xeeyoo yërmaande la ndax bi mu ñëwee ñi mu fekkoon ñi leen di néewal doole di leen jaamloo mu dàq loolu yëpp xamal ne ki ñu war a jaam mooy yàlla rek tabaraka wa taala moom ba muy ñëw fekk na jigéen ñi ñi loofal leen ba mu ñëwee delloo leen seen daraja kon mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg moo eeyoo ne moom rasulul insaniyati la ndax ba mu ñëwee insani yëpp insaniyatu yëpp jot nañ gis nañ seen bopp ci moom moo tax Cheikh Ibrahim di wax ne borom xam-xam yi ku ci nekk am na soo dégg ne loo tax ñu war na war nañ ñu war a gàmm ñu war a feetal bés ndax feet la ndax li imaamu suyuti di nettali xadis yi nga xam ne ki laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam or bési altine mu ne ko yow mun wilitu fii bés la boo xam ne ci laa juddu muy xamale ne kon yonent bi mu ngi xamale bés boobu bés bu màgg la bési bési bési bési feet la nee na tim yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamee ne eh, yàlla yónnee wàccee na ci moom wax yu ngénte aat na boppam loolu yëpp pour xamale ne bési juddoom bési feet la ñoom ñi déggee ci loolu ne dëgg-dëgg kon war nañoo mën a feetul guddi euh, bés bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu la nga xam ne moom la yonent bi wax baa nga xamee ne ñëw na medinatu munawara sallallahu alayhi wa sallam fekk leen ñi or mu ne li ngeen di or yahudi ñu ne bés bi ci la yàlla dimbale woon Moussa ci noonam yi Firawna labal leen ca Bahrul Xalzum ñii or bés boobu ngir sant yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man maa leen gën a xëy ci sant yàlla loolu dafay xamale ne bési xéewal bési ndolle bési dol ndàllal bési ba bési feet la feet nag bu fekkee ne liñ koy feetee naka jekk loolu daganoon na njëkk bési feet gi bu bési feet gi ñëwee tim dañ xam ne dagan na bu fekkee li ñuy def ci gàmmu mooy lele ñam daganoon na njëkk gàmmu di ñëw bu fekkee dañuy dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi na njëkk gàmmu di ñëw bu fekkee dañuy ganale gan daganoon na ñëpp njëkk gàmmu di ñëw bu fekkee dañuy daje jàng alquran daganoon na war na sax njëkk gàmmu di ñëw bu fekkee dañuy daje nettali jaar jaar yontu yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam naka la juddoo naka la ko laala sellalee tànnal ko fi mu war a juddoo tànnal ko ci ñu war a juddoo tànnal ko ab yaram tànnal ko barabam tànnal ko fameem tànnal ko jikko yi nga xam ne moom la ko yàlla taggee wa innaka la ala xuluqin azim ak yi nga xam ne loolu matal na mbooleem jikko yi rafet yi sallallahu alayhi wa sallama moom wax ne innama buistu li utammima makarim al axlaaqi jàng bés yooyu jàngat yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jàngat xayaat sahaaba naka la sahaaba yi dundeewoon ak moom nga xam ne ñoo gën nuñ mën a jàppee ci yonentu ñoo gën nuñ royee ci yonentu bi sallallahu alayhi wa ñoo gën niñ ko buggee woon ñoo ëpp nuñ ko buggee woon ñoo ëpp ko royeexoon ñu jàngat seen dundu seeni i góor ak seen jigéen ñoom ñëpp nga xam ne ku ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la gënal sa bopp te loolu mooy lislaam bu wér naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee Seydina Omar laa yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min nafsi min nafsihi allati bayna janbayhi loolu boo doon jàng dundu sahaaba yi da nga fekk ne loolu royaat na ci ñoom am na sahaaba yi buñ téye nga xam ne dara desul lu may ñu rey ko ñu ne ko waaw yow fii nga nekk nii nga mucc ci li nga nekk te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dara jot ko mu ne dég sax jam yonentu fa mu nekk te man ma mucc ci li ma nekk nii bëgguma ko dég jam yonentu bi fa mu nekk te man ma mucc ci li ma nekk nii sax bëgguma ko ki nga xam ne gumba na ci gannaaw yonentu bi sallallahu alayhi wasallam mu ne sama bët yi lu ma ko doon defee mooy xool yonentu bi sallallahu alayhi wasallam amaa waqat zahaba comme yonentu bi dem na feebar bi dem sax ci benn gazala bu nekk ci àll bi njamala bu nekk ci àll bi sax néewuma ko njamala googu ñooñu nag jàng seen dund bu fekkee na ñi jàng téere yi ñoo mën a dellu ci téere yi di ko jàng suñ mag ñi am pédagogie bi nga xam ne moom lañ am tànn bés bi nga xam ne ci la weer wi yonent bi juddu sallallahu alayhi wa sallam nga gis ni ko bàyyi doon defee te ñi koy defee ba léegi bu weer wi teroo ñi jàng madaaix yi ndax xool daf koo soxla xol daf koo soxla jàng mujizaat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo soxla jàng ay jaaruwaayam loolu yëpp dañ koo soxla lu tax ci bési gàmmu nag lu tax ci jamono gàmmu ndax jamono gàmmu moo gën a nekk munaasib munaasib ngir loolu ndax mbir mu nekk baax man naa baax waaye am na fu mu gën a baaxee xam nga ne alquran waxtu wu nekk jamonoom la waaye ba jibril di ñëw di jàngat ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax mu taamu woon weeru koor nga xam ne ci lay ñëw yonent bi di tariaat alquran ci moom ba atam bu mujj mu def ko ñaari yoon ba ibnu abbas di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a tabe ñëpp waaye weeru koor bu jibril di nafataat ak moom alquran moo daan gën a tabe kaana ajwada min rihin mursala moo daan gën a tabe niir woo xam ne dafa ànd ak taw ndax xiin bañ naan nii du taw waxuñ boobu waaye niir wu ànd taw yonent bi Ibnu Abbas mu ne ba Jibril daan jàngaat ak moom alquran moo daan gën a tabe loolu loolu lu muy firi mooy weeru koor mooy gën a munaasaba ak alquran ndax ci lañ wàccee alquran weer wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a juddoo yonent bi moom moom jamono yëpp tatawara fi l atwaari fi kulli haykalin wa hatta bada linnaasi qarman muqaddasa la Cheikh Ibrahima wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ na ci mboolee mi feeñu waaye feeñ na ci mboolee mi melokaano bam nekk nag ne dang feeñ neexel nit ñi muy kooku nga xam ne jëmm ju am ndey am baay ñu xam ko fu mu juddoo xam fu mu yaroo xam na la dundee loo xam ne kenn xamul xamaluñ ko kenn li ñuy nettali yonent sallallahu alayhi wa sallam nettaliñ ko nettaliwuñ ko ci kenn te xamuñ ko ci kenn amul benn yonent boo xam ne liñ xam ci dund yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa xam nañ ko ci moom ndax comme yàlla daf koo def pour ñëpp war koo roy ba ba àddina di jeexee ndax ba ko yàlla yónnee ba léegi ba fa àddina di jeexee ñëpp ci umma bi lañ bokk ñëpp ci umma bi lañ bokk ñu uy si ak ñu uy seegut responsabilité jullit ñi mooy ñu uy seegut ñu fexe bañ uy waaye duut suñ soxla moo war a nekk ñun naka la ñuy weddiantee ak naka la ñuy bañantee ak naka la ñuy xérantee xam-xam yaatu na déggin yaatu na ndax ni ngëneel yi uutee la déggin yi uutee yonanti yi ñoo gën tilka rusulu faddalna baadum ala baadin ñooñu sax gënante nañ ñi gënante gënante nañ ay uute yonent yàlla euh, Suleymaan euh, yonentu la Daawuda kii baayam yonentu la indil nañ leen masala yàlla ne faham naa Suleymaana wa kullan aataynaa hukman wa ilman te boobu kat Daawuda mooy baay ji te am na sax borom xam-xam yi wax ne boobu sax Suleymaan euh, yónneeguñ ko sax waaye yàlla ne masala bi Suleymaan laa ko déggloo yeneen masala yooyu ti mu ngi ubbeeku weeru eh, jamono ji nag dafa gën a dëppoog ndax ci la bi sallallahu alayhi wa sallam a juddu moo tax baay booba mu koy gën a dund moom it hmm? yuhayyiju ashwaaqi hilaalu rabiihi fa fiihi tunaadi bi sururi hawatif weer wi yonent bu bu bu bu delsee nag bu teroo loolu dafay jeqiyaat sama mbëggeel lu tax weer la boo xam ne xawaatif rabbaani yëpp mu ngi oote jëm ci mu ngi ootoo jëm ci lu war a bànneexoolal nit mu ngi oote jëm ci li war a bànneexal nit bu fekkoon dañ la doon dañ la doon néewal doole dañ laa bugg a jaamloo boo xalaatee yonantu bi am nga loo kontaanee sallallahu alayhi wa ndax xamal na ne yow doo jaami kenn lu may benn buur mu yàlla tabaraka wa taala buñ la buggee wàññi yonantu bi xam na ne feeg yaa ngi gëm yàlla kenn mënu laa wàññi ndax xam na ne ñun ñëpp ci benn maam lañ jugee kullukum min aadama min turab gënante bi fenn rek la inna akramakum indallahi atqaakum ku la gën ragal yàlla moo la gën te moo la gën tekkiwut ne dana am priorité boo xam ne moomu ko woon loo gën gën boo jotee nit te fekk yow mi gën yaa tooñ terewut lislaam daf ne yaa tooñ kon gëneel tekkiwut ne da nga war a taxaw ci kaw boppi nit ñi kon ku fàttaliku dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam am nga loo kontaanee bàyyi nag mu ne bu fekkee ñi dégg nañ ci masali yi yëpp ne dañ war nañoo gàmm mu ne man sax damay déggee ci la yàlla wax yonent bi wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nuthabitu bi fuaadaka maa ngi lay nettali ci xabaari yonent yu la jiitoon loo xam ne yàlla dana ci dëgëralee sa gëm yàlla nga xam ne am na ñu la jiitoon lor nañ leen weddi nañ leen ànd ak loolu yëpp waaye ñoom ñooy jaamu yàlla yi nga xam ne ñoom la yàlla euh, tànn luñ leen mën a sonal rek bu boobaa terewul ne ñoom xam nañ ne ñoom la yàlla tànn te xam nañ ne dëgg rek moom mooy mujj jàng dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ci jàngee jikko yu baax dañ ci jàngee muñ dañ ci jàngee yar dañ ci jàngee laabir dañ ci jàngee yaatu dañ ci jàngee naka la ñuy euh, toroxloo ci kanam nit ñi naka la ñuy wegee doomi adama naka la ñuy xoolee doomi aadama bëti yërmande nee nañ ko ñaanal yàlla waa Quraysh ñu xalaku mu ne yàlla daf maa yónni ma nekk yërmande yàlla daf maa nekk daf maa yónni ma nekk yërmande loolu nag bët bu set lañ ko war di faytu bët bu set lañ ko war di wax bët bu set lañ ko war di tudd waaye bu fekkee jamono mayewut bët bu set ñi defee ko comme niñ koy defee ci jamono gàmm waaye jamono maye ci jamono gàmm ñi mën koo defee niñ koy defee dajee jugee ci barab yu fasantikoo dajee xamante rek jar na ko dajee xamante rek jar na ko ndax jullit ñi buñ xamante wut seen doole daf nekk waaye mel ni amut dégg nga dajee dimbalante jar na daje leelante ñam lehele ñam jar na ko ndax laaj na yonent bi ayul islaami afdalu mu ne itaamu taami wa ifchaau salaami ala man arafta wa ala man lam taarif di lehele ñam ak siiwal jàmm ci koo xam ak koo xamul bu fekkee am na gàmm yoo xam ne dañ ci boole loo xam ne nii xellut looloo xellut waaye du tere gàmm baax du tere gàmm baax fekkee nag tur wi la ñuy wax ñii ne dañuy gàmm ñii ne mutamara sirat nabawiya lan la ute hmm? lan la ute def ne tamar boo def pour pour dundu dund yonent bi ak ak yow nga wax baat bi ci sa baati olof rek ndax gàmmu rek mu ni mu baat boobu rek war naa tax mu ñàkk a baax hmm? am koo xam ne mas naa gàmmu def ci loo xam ne jaaduwul ndax loolu war naa tax gàmmu ñàkk a baax kooka la muy def moo moo jaaduwul ku dugg juma dem ci juma sàcc yow yaa ci juma waaye terewul dugg juma baax na terewul dem ci juma ji baax na terewul julli baax na terewul dajee baax na kon yu baax yooyu ñun bu ñuy gàmmu loolu lañ loolu moo tax ñuy dajee moo tax Cheikh Ibrahima doon ko tuddee mutamaru arbaabil mahabbati maanaam sommet bu nga xam ne ñuñ bëggeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo ko moom moo tax ci dénkaaneem gàmm aleykum bi taazimin rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam mustafa sallallahu alayhi wa sallam na ngeen màggal yonentu niñ koy màggalee mu ne bi kasrati salaati alayhi bëri julli ci moom yàlla santaane nañ julli ci moom wa am daaxihi wax ay taggam taggam yi nga xam ne yàlla moo ñu jiitu ci taggu ko moo tax bàyyi ne qadasna alayhi rabbuna bi kalaamihi fa maada asa barhamu yusbihu xaakiyan faulun mafailun faulun mafailun madi dahri laa yati bi xaqi samaaxiya walakina madxa almaadixiina tashafaun fa yashfau li taaha li ajli maqaaliya yàllaa la njëkk a tagg kon ñun buñ lay tagg ndax dañ laa mën a yokku déedéet dañ lay tagg ngir ñun ñu yokku ci dañ lay tagg ngir ñu yokku ci buñ la taggee wax say jikko yu baax jikko yu baax dafa rafet ku ko gis mu rafet ak yow dana la neex bu la neexee da nga jéem ci roy ko te kenn muccut lu may ñu roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ñoom ñoo mucc moo tax baay ne bu ñuy gàmm gàmm bi jël ñu ñun mbëggeel yonent bi sallallahu alayhi mbëggeelam bi jël ñu ñun bëgg shari'am bi bëgg sunna bi mbëggeel googu moo ñuy bi jël topp yàlla tabaraka wa taala loolu kay dañ koy def pour ñu àgg ñun ci texe ñi mën a wéy wéy ñi mën a eh, ñi def seen i xasida def seeni i xasida rooxo xol yi yëpp tim dafa am lu mu soxla am na loo xam ne xel rek lay wax ak am na loo xam ne am na nit koo xam ne déggut sax arab mu toog ñi jàng xasida bu neex kolom tooy ba bu ñu waxee lu jugee lu jugee ci yàlla mu mën koo jël xolam tooy ba mu fàtte jotaay yi caaxaan yi mujj bëgg jotaay yi bëgg yàlla bëgg jotaay bi nga xam ne buñ ci toogee du jeex mukk lu may julli nañ jotaay ba nga xam ne bañ ci toogee bu ñu commencé gàmm lu ñuy def dañuy jàng tehniyatu pour wane jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wane suñ kontaante ci mbaax gi nga xam ne yàlla moo ñu ko may ci feeñaaw ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ne bëggeel yonent bi dëgg dëgg mooy topp gooxul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah jàng ci dundi saxaaba yi naka lañ koy toppee ndax buñ la nettalee ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ni màgg màgg moom lañ war a roy waaye danga wax ne kii ab yonent bi yàlla la man nit kese laa ñu indi la dundi saxaaba yi nga gis niñ baaxee ak niñ bëggee yonent bi ak niñ téye ci alquran niñ dimbalantee niñ nekkee woon benn niñ tuutee woon ci jamono waaye ëpp jamono yëpp doole ngir seen gëm yàlla bi nga xam ne moom lañ gëm yàlla ak seen bëggante ak seen dimbalante loolu dang nga ci jàngee yow tim naka ngay royee ci saxaaba yooyu naka ngay royee ci dundam yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka ngay royee ci bëgg yàlla naka ngay royee ci bëgg ñun yàlla naka ngay royee ci bëgg sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam loolu ñu koy boo sonnee léegi ñu doggantal la ko doggatul la ko ci ay musique ay morceaux yu ñu lay may waaye dañ la koy doggantal ci loo xam ne boo ko xamoon boo ko mosoon da nga fàttee li yi bànneexoo ci seen i caaxaan yi nga xam ne dañoo wax ne moo leen yóbbu ñoom ci seen xoolalaa wala nuñ ko mën nuñ ko nuñ ko mën a tuddee ndax kiy bëgg yonentu sallallahu alayhi wasallam la bàyyi wax ci ci xaalam yenn ci xaalam yenn xaal yenn xaal yi mbëggeelam yi te wax na ne wali kulla waxtin xaalatun baada xaalatin wa xaalatu mastxil Mustafa xayru xaalaati waxtu wu nekk maa ngi am xaal jugee ci xaal dem ci xaal waaye xaal bi may taggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën ci sama xaal yi nga gis ne kii mbiram baax na dundam baax na doxalinam baax na mujjam baax na jeexitam baax na ñim yar ñi topp ci yaram baax nañ ñim jàngal ñi xam yoonam baax nañ nga ne ko yow lu la baaxal mu ne sama xaal yëpp bi ci gën mooy bi ma doon tagge yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu kenn du ko xeeb tagg yonentu ma ne xaal yooyu nag demoon na ci ba àgg ci benn xaalam boo xam ne mu ngi wax ci jeexaam ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam mu ne damaa dem ba foog ne addina yëpp dee nañ man ak yonentu bi rek sallallahu alayhi wasallam ñoo fi nekk xasitu tihu dunyan qadat raaxa ahluha walam yabqa illa al munhamina wali safa mu ne ma dem ba foog ne addina tukki na ñuñ addina dem nañ ku dem ba foog ne addina tukki na yow rek yaag yonent bi sallallahu alayhi wa yéen a fi des sallallahu alayhi wa ndax dara ci mbiri àddina mën naa dox sa digganteeg yonent boobu ndax dara sa digganteeg mbiri àddina mën naa dox sa digganteeg alquran bi nga xam ne mooy buum gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne indi ne boo jéppee ci bii bii mu ngi ci sa loxo bii mu ngi ci loxo bi yàlla mooy njub gi nga xam ne nii du xewi bi mukk mooy kawtee bi nga xam ne jinne yi bañ ko déggee mënuñ li ma ñu wax ne inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi ku soxlawoo yàlla ba àgg foofu inna la la la la waa ji waxoon la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko waxoon saxaabi mi nga xam ne dafa fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy julli mu koy nuyu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkk nag njëkk muy gàddaay ña demoon gàddaay dem xabasha ba ñuy tàggoog yonent bi fekk na boobu sallallahu alayhi wasallam daan na julli nga nuyu ko mu fay la ñi del si nag fekk loolu passé na am ku koy nuyu fay ko mu ne ko inna fi salaati la shughlan am na lu mën a soxlaal nit ci julli walis leneen waaye am na ci mbëggeeli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam luy soxlaal nit walis caaxaan walis caaxaan walis li ñuy tuddee ne mooy bidaa li ñuy tuddee ne mooy caaxaan yu ñuy def ci gàmm ku mbëggeeli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxlaal yow boo ko ci loolu ndax ki nga xam ne ba nga àggee ci mbëggeelam dëgg-dëgg foog nga ne keneen nekku fi leneen nekku fi keneen amut keneen xamut keneen manut bu boobaa yonent boobu nga bëgg te loo jeex jeex ci moom mënuloo jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba fàttee nekk yàlla gi man loo jeex ci yonent bi ba fàtte nekk ak yàlla gi Baye dafa waxoon Muhammad al Misri ne ko man xam naa jaam bu jeex ci yàlla ba fakk péeb yonent bi péeb Cheikhu Tidiane bu fekkee ne jaaru jaarutoon ci mu jeex ci ñooñu waaye xaw ma ku jeex ci ñooñu ba fàtte yàlla ku jeex ci ñooñu ba fàtte kon yëf yi du dara lu may dëgëral suñ buum ak yàlla la tabaraka wa taala moo ñuy jàngal siiratu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñuy jàngal jaaruwaayam buñ ko defee ci guddi yëpp nettali siira lexee la ñam jaarale ci diggante ay xasaayid yoo xam ne yëpp tim daf ñuy portrait yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñuy wax naka la meloon naka la dundee naka la saxaaba yi dem ak moom duñ jeexal ci loolu mukk lu may bési gàmmu da nga gis baay gàmmu bala ñoo tasaaroo ci gàmmu gi ba léegi nii danañ tasaat kaamil bi jàng ko wane rek ne lii yëpp nag ñu ngi ko doon def pour lan du pour sori alquran de dañ ko doon def rek pour dëgëral suñu relation ak alquran asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu BonXBet, profitez d'une vraie sensation, une vague d'émotions, une poussée d'adrénaline, le goût de la victoire. Êtes-vous prêt Découvrez tout cela et bien plus encore avec OneXBet. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Jeu autorisé par la LONAS aux plus de 18 ans. Sensei. Un entraînement total du corps. Un mode de vie sain.